rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi am mbégte dellusiwaat ak yéen ci sunu minbarul jumaa bi ñu baaxoo ànd ak yéen ak lenn ci sunu kilifa yi nga xam ne jiituñ nañ ñu fi te lépp rek di woote. ak di jëm ak di jëmale ci alquran wa sunna ñu jiital ci jataay bi sant yàlla buur bi subhaanahu wa taala julli ci Moustapha aleyhi salaatu wasalaam gërëm cheikhul xadim xadim rasul sunu yaakaar sunu wéeruwaay ci lislaam di ñaanit yàlla fayal ñu ko ci lislaam loolu yomb na yàlla ma zalika alallahi bi azizin yàlla na yàlla defal ñu ko te defal leen ko di leen bala xaq ginnaaw bu ñu leen balee xaq di ñaan yàlla borom bi tabaaraka taala mi nga xam ne ku mu jéggal nga am njéggalam te dootu topp dara yàlla na yàlla boole ñu njéggalam ci kàttanam ak sañ ak coobareem bi nga xam ne ci lay jëfe lu mu mën di xew waaye ci daraja ñool Makka alayhi salaatu wasalaam barki Ahmadul Xadim di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu génn di leen nuyu di leen ziyaar ci weer wu màgg wi ñu tàbbi di ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala ni ñu ko màngee noonu népp nag yàlla yàlla borom bi subhaanahu wa taala dimbali ñu bee liñ ci def ci ay jëf yëpp yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko ful liñ ci yéene te aguñu suñ suñu télé yàlla na ko yàlla mottali ca mane yooyu yëpp yomb na yàlla yàlla na yàlla féete ñu fa di ñaanal alxalifa Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke mu yàgg fi te wér ak njaboot gi yëpp ak umu islam bi yëpp ñaan googu it képp ko ashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna muhammad rasulullaah tàbbal nañ la ci di ndokkeel aima yi ak ulama yi ak fuqaha yi ci seen liggéey seen taxawaay yu am solo lu jiitu weer wi rawatina bi weeru koor wi ñëwee yooyu yëpp nag mu yoo xam ne ci yàlla rek lañ ko jëme woon noo ñaan yàlla yàlla ko yàlla fay incha allahu rabbi taala jotaay bi ñu bëgg a waxtaane ak yéen ci ak fàttale ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee te alquran wax ko mooy fexe waxtu wu nekk saa su nekk muy dolliku di jëm ci borom bi subhanahu wa taala ndax loolu mooy tax nu tonawu ci kanamam ndax bu amul ci baatin saahir si moom ñu ngi gën di dolliku ci moom tabaraka wa ndax ku bàyyi ko barab daw jëm barab loo gën di jëm barab ba nga war a àkke war ngaa yokk soo xel te ko ñëw jamono yaa ngi dégg yàlla na gudd fan ngi wax amin waaye ci biir gudd fan googu nag dee min ci kanam te alxuraan waxoon ne dee moomu day ngeen di daw su ngeen dee ba àkk mu ne ak ma fa yàgg dina xaar moo tax niñ koy defee wuute fi ñu ko defee wuute ñii da leen fekk ci jumaa yi ak jàkka yi ñii mu leen fekk ci barabu fowukaay yu mu ci doon yu nekk ci ngeen xam nu xam ko loolu li ñu war a dégg mooy fexe ba suñ dund gépp ñu màng ko jëme ko ci lu neex yàlla ak barab yu neex yàlla fexe ba weer wi it aljumañ tey rek ñu ngi doon def salaatul tasbiix te mooy jullit fay faat di xamle ne yonent bi alayhi salaam wax na yu bare bare bare ci xéwal yu fekk ci ab julit bu taxawee yu ni mel rawatina bu farloo bu rëcc ko sax ba muy fay faat loolu li ko waral dégg tur yi mooy fay li la faatoon ci ay waxtu waaye xam ngeen seytaane bi weeru koor wi ñu génn tàbbee waxoon naa fi ci ay bayaan ne day ser ndax lan day xam ne liggéeyam yàqu na ci weer wi waaye day dajale ak njabootam gépp woo leen bañ ñëw mu wax leen na day na ngeen defaru te muñ yàggut waaye loole mën a wax nag bu weer wi jeexee ni ki bërki démb day taxawaat yuuxuwaat njabootam daraat ko mu ne leen nag defaru leen ba li leen rawoon ci weer wi ngeen fexe ba dabu ko kon ñun jullit ñi bu ñu dee fay faate seytaane moom ma ngay fay faat nañu fexe nag ba lam bëgg moom ci jullit ñi ñu ànd ak yàlla la waxoon ne inna ibadi laysa laka alayhim sultaan ànd ak ñooñu yàlla te yàlla wax na ci alxuraan ne ñooñu yàlla day moo ñuy texe moo ñi raw ñu waxaat tamit ne waxoon nañ ko daaw ñaan ne yàlla ñu dund ba déwén si yàlla sàmmaan ñu ba ren am at dellu manqué ti suñu ak dund ñu yëg ko ak ñu bañ koo yëg te kenn ku ci nekk alxuraan wax na dafa am ajal bu ñu la jox boo xamante ni bi ngay ñëw jamono laata nga gane jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamle ne jibril mooy dikk ñu bind nit ki ñeentam bi kat bi risqihi wa ajalihi wa amalihi wa yun am saidun ñeent yooyu kenn ku nekk bala ngaa ñuy jamono yàlla bind na ko noot waaye nag lay tax nga jëm te nag yaa koy sabablu kon nañu fexe ba sabab yooyu nga xam ne mooy teggin yu war a dox suñu digg suñu borom subhanahu wa ñu taxaw ci weeru koor nag dem na waaye jaamu yàlla des na yiñ ci doon def yépp li ñu ko doon tax di def ak di góorgóorlu mooy dañoo waxoon ne weeru koor weer la woo xam ne boo doon def démb bi weeru koor ñëwagut fukk ñu la ci tegal fukk muy téeméer tey boo ko defee fukk ñu tegal la ci juróom-ñeent juróom-ñeent muy junni loolu kat la tuddee promotion yi jot suñu portable yi rek saa soo ko jotee neexaayu liñ lay dolli ci ab xaalis dana tax danga nga jënd te doon te waaju woon bëggoona a jënd jaamu yàlla gi ci koor gi noonu lañ kon def ñu ngi doon tax ab but ci xeeti jaamu yàlla yu bare bare yooyu ñu doon def nag tey ji la gën a raw ndax xëy na yow mi ko def waxoon nañ la ca la ci aju nga xam ko di ko jëfe gëm ko te noonu la ko yàlla defe nu ko raw sax la koy defee waaye ñi ñu ko doon def ci ñoom tey lañ gën a soxla woo muy ndimbal yi ñu doon dimbalee néew doole yi tey lañ gën a soxla ndimbal jàpp gi ñu doon jàpp suñu njàmbur tey la ko islaam gën a ittiwoo ci jullit bi yéenante gin ñu doon yéenante jàmm daw gi ñu doon daw aw ay yu baax yi ngeen xam yépp ñu xam ko daan ko làmb ci weeru koor tey jële gën loolu moo tax alxuraan waxoon ne ba mu ñuy xamal aaya bi ne ci alxuraan weeru koor farada la yoo xamante ni alxuraan indi na ko ba muy jeexal aaya bi mu ci xamal daa waxoon ne xay na bu ngeen ci génnee am ragal yàlla gu ma sëkk kon ab lël lañ defoon doon lëlu yàlla dogal na ñii def nañ ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñii def nañ ko fanweer xëy na waaye lu ci mën a xew liñ ci wot a jëlee rek mooy këyit woo xam ne danañ yóbbu bu ñu demee fa ñuy fa ñuy affecté ñu mën faa jàmmal man faa baaxal man faa defar te yooyu mu tudd nag bala koy kenn mën a def dangay nekk ku baax ba noppi nekk nitu jàmm ba noppi ndax muslix saalix moo ko jiitu. da ngay baax bu noppi doon mën a baaxal waaye nit su amul dara du ko joxe borom xam-xam ñoo wax ne faaqidul shay'in la yu'ti kon nag yóbbal boobu ñu ciy jëlee bu ñu demee ci beneen aaya alquran daf ñuy xamal ne na ngeen wut ab yóbbal kon daa mel ne ki lël bi fu mu ñu jëmee ñu waaj nag ñu ñëpp préparé wu pour jëm màkkatal mu karam siyaara ju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu mu ñu ump ñu demagut ñu dem yàlla yàlla nangu leen te xam ne yonent ak pay yàlla du ko jagleel ki dem tiim rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ay ahkaam ba àggal ilal jannat kon nag loolu ku fay dem am na noo fa yóbbu moo tax mu ne wa tazawwadu na nangeen yóbbulu ndax yoon wu sori la tukki bu metti la waaye sell la laaj ndax inna allaha taala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban ñu ne ko ah lan la ñu yóbbuloo ndax dañuy wol ay suusal ndax dañuy yóbbu ay yére ndax dañu wut ay takkaay bu dee ci wàllu soxna yi ndax dañuy wut ndax ndax ndax yàlla ne déedéet fa inna xayra zaadi yóbbul ba gën ca màkka mooy attaqwa bi nga jëlee ci koor daal ne kon ngalawaay wattaquuni yaa ulil albaab yéen ñi am xel tama togg leen jëf ragal leen yàlla ci bu ngeen dem moo tax ba muy leeral aj màkka daf ne koo xam ne aj na màkka ba pare euh, mbóorante woo caaxaanoo fowoo falaa rafasa wala jidaala fil xaj ba aaya ba jeex kon yooyu yëpp nag ku koy def kon na ko wër ne su ne ragal na yàlla tamit kàddoom moo ko wax waaye xolam jëfewu ko loolu lu ñu doon ubbee rek la tom bi ñu bëgg waxtaanee tey nag moo ñu tàbbal ci ku nekk loolu nooy mel yoon wooy jaar ba àgg ci dëgg-dëggi ab jullit te mooy baat bi sëriñ bi woote woon de mooy al muridiya baatu murid nag lu gàtt la waaye lu yaatu la te sëriñ bi nga xam ne ku tudd muri moo tax moom rekk la waaye keneen ku dul moom nag lay tax nga nekk murit du looy wax waaye looy jëf la nooy mel la lool it benn xisa boo xamante ni siiw na lool ci njaareem gi rek lañ ci nettali jàll te mooy mbokk mi dikkoon na ko jox naa sama bopp àddina ak alaaxira loolu lu ñu ci dégg mooy wommatu naa ci yow waaye dafa woote waat fere yi den nag moom ne demal nga waxaat ko ni ko waxe woon kooko waxaat ko mu ne leen wala mu ne waaja wax nga ko dégg naa ko soo ko jëfee ma jàpp ko kon murid du ay wax waaye jëf la ndax ba mu dikkee ne ko jox naa sama àdduna ak alaaxira man na ko ñaan mu dem waaye dafa wowaat mbooloo seede ko mu ne wax nga ko ñu dégg ko waaye saa soo ko jëfee nag ñu yàpp ko jëfin woowu nag ñu war a jaar ba àgg ci baatub saadix mooy meññetum murit mooy meññetum ki jëm ci yàlla naka la war a doxe naka la war a mel yan dénkaan la ci a cheikh Mouhamadou Bachir radiyallahu taala anhu joxe woon ci téereem bu am solo boobu boobule waaye lan moo tax nag ab sëriñ dëgg-dëgg lan moo tax ab sëriñ yàlla moo ko wax ci alquranu karim melokaanam tamit bu ko bu noppee ba noppi waaye sàtt yi nga xam ne mooy daje tax loola mu mën koo jëmmal ba bu ëllëgee buñ nee murit buñ nee saadix mu mën a gestu kon baatu murit ñu ko waxee léegi baat la bu gàtt boo xamante ni sëriñ bi wax na ne mooy koo xam ne amul dara ci jëmmam dara yi moomu ko du waxtu du itte jenn ju jóg ilif ko waaye mooy koo xam ne saa su ndigal yàlla jóge mu jóg su ndigal yàlla tegee mu teg loolu nag buñ ko waxee dañu gis ne wàññiku walla yokk mu ngi ci jëf moo tax ñu wax ne murid mooy koo xam ne amul dara dara mu ko radiyallahu anhu waxoon ne isil muridu jaam bi nam mu jëm ci borom tabaraka taala laa yuridu abada du bëgg mukk faaw dara xayra di rahmaani naree ngërëm boromam foo ko sin muy jëm moom lay sàkku loo ko sin muy dox moom lay sàkku loo sin muy wax ngërëm la ci wut ndax ngërëm mooy li nga xam ne saa su ko jaam bi amee bu ko dindee lépp lu mu soxla na ko ci fekk ci biir ñu defal ko ci mu ne nag ba ci sa waa kër yi nga xëy di jox dépense jublu ca jaamu yàlla da nga ci am ngërëmul yàlla bu nee jëf yàlla gërëm la bu ñëw jërëjëf it yàlla gërëm la ndax loo xalaat ba di ko daj ba di ko bëgg a defe ngërëmul yàlla fekk ne yàlla moo la ko jox moo tax mu ne foo mën di jëm rek abu taalib radiallahu anhu nee na moom wala yakunu muridu saadixan baat boobu nag euh, dafa bari ñu ngi koy askane léegi te bu ñu delloo ci histoire ca démb ñooñu ca ginnaaw lañ nekkoon bokkuñu woon sax ca murid yeen xàmmee bokkuñu sax murid yee jege woon waaye tey daa mel ni àdduna dafa safaane yëf yi ba ñoo ñooñee tey ñoom lañ jiital ci kanam jël murid saadix ya nag teg ca ginnaaw te mbir mi di noonu de Abu Taalib nee na murid saadix ci ak wéetam ak wétlikoom ci ak cowateem ak kàttanam ci ab lu nëbboom ak lu feeñam lépp ñu ngi koy xàmmee ci la muy dox jëm ca ndax daa war a mel ni rab boobu ñu tuddee kàkkatar lu mu tiim mel ni moom lu ko tiim mel ni yow garab gu mu mel ni moom waaye loola zahir yan la waaye ku ne xam ne moom yëfi bopp ma nga ca biir te melokaanu dëgg dëgg dëgg murid saadix fu mu dem na ko yóbbaale nga xam ne yow yaay soppe waaye kenn du la soppe loolu sëriñ bi jàngal na ko fii ñu jublu ci nag buñ ne namm jëm ci borom bi subhanahu wa taala mooy namm jaar ci yoon wu sell ndax yoon yi jëm ci ab dëkk mën naa bari waaye yoon yi àgg it mën naa néew te kuy dox àgg nga bëgg kuy dox àggale nga bëgg noo ñaan yàlla mi nga xam ne moom yëpp moo ko yor ko ci loxoom mu jàpp ñu dimbale bañ àgg ba àggale sëriñ bi nag mu tabax ko ci alquran ak sunna di lu yàgg lool loo xam ne lu ko jiitu dégguñu ko woon lu ko mujjit moom rek la ko defaat da ko roy ci moom te loolu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ko fi ne koo xam ne buñ nee murit moo tax boo ko jàppee nekk ko boo ko jàpp ko doo ko doon bu ñu wax murit kon moom rek a tax moo tax wax ci njëlbeen gi ne moom rek mooy murit waaye keneen ku ko bëgg a doon danga koy jëmmal la nga wax dëppoo la nga jëf bu dee ngir mi ñu sóobu na pour jàll si ba mën a jàll ba mën a jàllale sëriñ bi daa wax ne dafa am ab jubluwaay bu tax ndax ku bëgg a tukki faw nga am ab jubluwaay am na lu lay poussé ci nga tukki waaye am na ay awraat waaye am na ay waajibaat te mooy li la war ci li nga war def ci li nga wax waaye am na tamit ay ponk am na tamit ay waregar yu wuute ak suñu waregar yi jamono yii ni ko suñu soxna yenn yi defe loo xam ne danga ngaa gàlloo ne lii moom sasoo naa ko ñaar fukki waxtu yi ak ñeent ay bis bi weer wi at mi nga fexe ba wute sa bopp calendrier boo xam ne waxtu wu nekk danga nga wut loo ci def doo tab je ba ñàkk ko def doo am mbégte ba ñàkk ko def doo am naqar ba ñàkk ko def gan du ko bare ba nga ñàkk ko def waaye tamit doo wéet ba ñàkk ko def loolu julli bu nekk war na ko wut rawatina am murit ngir moomu nag a Cheikh Mamadou Bachir daa waxoon na yaa ra'imal kamaali fi saada yow mi nga xam ne yaa ngi sàkku jëm ci texe gu dappetu te mooy am ngërëmul yàlla fii bu ëllëgee nga am ko bëgg ko jële ci yooni masaax yi nga xam ne ñoo di ñett tudd ca ñi ma bëgg a tudd daane tarixatu cheikhul imaamul jiili ak zazali yu alxaysi tafdili ak abil abbas fahril kumali ñett ñii la wax ne koo ci tànn boo jàppee ca lañ jàpp na ko sëriñ bi waxoon ca masalik da àgg fañ àgg ndax ku jàpp ci lu àgg àgg waaye ku jàpp ci lu mu fenn fa mu yem rek la yem bi mu nee ba jeexal la ne yow mi nga xam ne yaa ngi tànn nag maa ngi lay digal maa ngi lay sant faltazim faltaziman tariqatal abdul xadim man xasahu bi irtihal abdul xadim maa ngi lay wax maa ngi lay digal nga yër yoonu Cheikh Xadim Xadim ndax lan mu ne li annaha li kulli wirdin sirru ndax benn wird boo jàpp am na sirru secret bu ci nekk boo xamante ni mi ngi tënku ci baat boo xamante ni ca la ki jàpp ca loole te xam nga nag ba jàpp ca ñeel na képp koo xam ne am na gis xol mu ne laa xayruhum xikmatu rabbil qaahir du yeneen du beneen bu dul bii ma la joxoñ Cheikh Mouhamadou Bachir mooy wax mu ne misaaluha alaylatu fi shahri siyaam mu ne maa ngi la koy misaal ne yoon yi jëm ci yàlla turux yi jëm ci yàlla mi ngi mel ni ki guddi weeru koor guddi yëpp a baax guddi yëpp a barkeel waaye laylatul xadar du ci benn ndax lan inna anzalnaahu ji ñu waxoon keroog ak ci xew wa saatu jumaati fii kulli turaam ak waxtu aljuma nga xam ne ulama tafsir kenn ku ci nekk am na noo ko dàkke am na noo ko gisee waaye yow miy diglu soo bëggee fexe ba am saaxatul jumaa boo xëyee ba julli suba noppi rek defal ba ba jant bi so lépp muy sa saaxatul jumaa lu baax lu ne nga fexe ba dugal ko ci ak waxtu danga tombe ak waxtu bi nga xam ne mooy saaxatul jumaa lu tax ab sëriñ nag alquran nee na huwa lasi arsala rasulu bil huda wa diinil haqq li yuzhirahu ala diini kullihi waaye wala wa karihal mushrikuun moo tax àdduna loo fi samp ci lu baax rek am ñu ko opposé loo fi mas woote ci lu baax rek ak foo man delloo boo ko delloo ci suma Ibrahima alayhi salaatu salaam ba ci Seydina Muhammad ba fii ñuy wax ak yow amul kenn ku mas ne lii lu baax la te gisoo ko ne waa waaye ca wet ga moo tax alxuraan ne yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne moom la yàlla yónni ci ak njub ci diine dëgg muy diine islaam ngir mu feeñal ngir mu kaweel diine ji nga xamante ne jiitu na ko fi taraw diine yëpp loolu nag dana ko def loolu nag dana ko def donte diini yëpp bañ nañ donte musrikuun yi bañ nañ afwan donte musrikuun yi bañ nañ benn bi moo xoon ne yéen ñi nga xam ne da ngeen gëm yàlla borom bi tabaaraka wa taala te gëm gi di dëgg ngeen fas ko seen xolli ko jëf seen ay cër yàlla nee na ngeen ragal yàlla de waxtaane léegi bu ngeen ragal yàlla bu noppi doyut na ngeen sàkk wasila te mooy kerkeraan bu leen di wommat di leen joxoñ ndigal yàlla yi ngeen jaar ko ci sunna sos Muhammad alayhi salaatu salaam ba mën a àgg ci yàlla ndax xam nañ ne képp koo xam ne nee nga doomu a jëm ci yàlla yàlla nee na boo jaaru ci ki ma teg fii yéen muy sama bunt doo àgg ci man moo tax mu ne wabtaxu ilayhi wasila ngeen sàkku kerkeraan nag te bu ngeen defee loolu ba noppi doyut ragal yàlla sàkku kerkeraan waaye wa jaahidu ngeen sonal seen bopp ngeen jihaad sonal seen bopp joxe seen alal ci yoonu yàlla fi sabilihi yépp nag bu ñu ko defee yàlla na laalakum tuflihuna xëy na xay na lee ngeen daje ci ngërëmul yàlla wala texe yàlla subhanahu wa taala maay di ay 35 nga gis ne yàlla ci yërmandeem rek lay amale ak texe waaye kenn warta sukkandiku sa jëf kenn warta tamit naagu si ay bakkaar te loolu mooy naagu ci yërmande yàlla te yàlla waxoon naa fii ne xafaar la te saa soo naagu ci yërmande yàlla rek mooy wax nga ne xafaar moom amatul kon yàlla loo mën di diis ci ay bakkaar bu naagu mukk ci mën yàlla jàpp ne yàlla mën na laa jéggal ndax njëgal gi du ko wàññi dara bàkkaar bi du ko wàññi dara du ko yokk dara ndax ni mu toll moom yàlla subhaanahu wa taala kon bokk na ci mbirum murit murid imaam Junayd radiyallahu anhu nee na bu fekkonte ne murid saadix dëgg mën na yàlla borom bi tabaaraka taala di dox lu toll junni at mu geestu benn geestu rek boo xam ne defu ko ci yàlla nee na la muy ñàkk ci gestu boobu donte benn seconde la mooy ëpp la mu amoon ci junni atam yooyu dox jëm ci yàlla ko wa la nga xam ne kon yàlla fiir bëggul kenn ku koy boole dara moo tax suñ tubaa daan dénkaane ne na ngeen nàmp ci man te jàpp ci man te ba ma feral leen te su ma leen feralee bu leen ma boole ak maq suuf ñu laaj ko mu ne maq ci ab taalib mooy bëgg boole sëñ tubaa ak àdduna ndax dafa jëm penku àdduna jëm saw sëriñ bi nee bi ma ko ñaanee li ma gën a bëgg dafa jël lépp jox ko jël àdduna dugal ci biir boole jël mbaa boole bàyyi loolu nag li tax yàlla di ko def mooy xel mi mu la jox la bëgg nga jëfandikoo ko xel mi mu jox doomu aadama la bëgg waxtu wu nekk nit di jëfandikoo am xelam bañu nekk bàyyi mu bañu nekk rab moo tax waxtu wu nekk léeg-léeg ngay wut dara ba am ko nga ne lii de baax na la waaye su su dogoon ko ne nangam loolee xel mi yàlla jox moo tax mu tàbbal ko ci biir xool ba xam def ak sam xel ba jëfandikoo ko sëñ Tuubaa nag nee na am ñu ma topp na ma dana ngir àdduna rek buñ ko amee ba waaye yéen fexe bu leen ci bokk moo tax bari waa na lu koy nuru te doonu ko lii rek moo ko waral li yàlla jox sëñ Tuubaa àdduna ak alaaxira te am ñoo xam ne àdduna képp lañ bëgg ci moom saa suñ ko amee wàcc ko loolu Cheikh Salim Mbacké radiyallahu taala anhu leeral na ko bu yàggut ci ay jamono yu mujj kon bokk na ci mbirum ki nam mu jëm ci borom bi subxanahu wa taala te ko xañ ci sëriñ bi. mu fexe ba góor-góorlu ci jaamu yàlla ni ma ko waxee léegi rawatina buy door te rekki ko ci lépp luy ay tooñaange rekki ko ci lépp luy bàkkaar jublu yàlla mi nga xam ne moom ku ko jublu mi ngi ak yow ku ko jublu tamit mu ngi ak yow te bis dana dikk da ngeen daje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daane wax ne yow yàlla maa ngi lay ñaan nga def bis yi ma gënal sama bis yi muy bis may dajeeg yow kon moom bàyyi woon na xel dee dee moom jëtt a ragal li jar a ragal mooy ndax dañoo wax ne ni ku nekk nam dunde noonu rek lay faatoo wax naa ko léegi waaye nam faatoo noonu lay dekkee ca dekkee ca lañ koy atte kon nag bu dee barab bu baax bu ne nga dem fa lu baax lu ne sa xel ne ci sa xol ne ci sa lam sa kàddu ci ak sa loxo bis buy dikk mën ko bañ a ragal ndax am yaakaar ci ne yàlla moom la xam dañ mukk ndax waxoon na ne xanaa payug lu rafet jëf ju rafet du lu rafet rek tontu bi axakay ah, rek la te yàlla nag moom képp kuy def lu baax moo la ko gën le moo la ko ëppale moom imaam Junayd di mu wéy wax ne taalib bi nga xam ne dafa topp ci ginnaaw sëriñam di jublu ay ndigalam di bàyyi ay tereem kasaalika noonu waxtu woo xamante ne juyoo na ak lañ ko defal wala lañ ko ne bàyyil na ko wóor ne lam na am yëpp sippeeku na mu war a fexe ba dabaatal ko ne sëñ bi waxoon ne wa man tadaaraka lazi xat faata min laxa wa amaral aw xaata lii ngeen def taamirul awqaat ci la bokk te mooy teel a ñëw ci jàkka dundal waxtu yi yor sa kurus astaghfirullah ne dal laa ilaha illallah yaa xam loo man loo ci mën di wax moo gën dàkk waxtu rek dikk ànd ko nit ñi demaat sa ittee ndax ittee àdduna moom suñu tuwaa nee na wa maa xadaa arabun illa ila arabin ittee bu jeex rek beneen taxaw na la maa ngi nii asayid ibrahima adda suuxi moom dafa wax ne bokk na ci sàtti muri saarix mooy mu génne lépp luy ab cër ci bakkanam génne lépp luy ab cër ci bakkanam bañ a bëgg daraja bañ a bëgg gestu jëm ci mbindeef yi te xool rek ci borom bi nga xam ne moo amal mbindeef yi ndax ñaare saa sooy xool ci liy am aka dem mën ngaa bañ a am saadax ci li ngay def waaye li ma tax xool nag mooy ki nga xam ne mooy amal aka demal Seydina Ibrahima alayhi salaam bi mu gindikoo dafa commencé daan na gis biddiw yi daan na lii de moom mooy yàlla di xool yàlla ci biddiw yi biddiw yi suux mu ne ah luy suux daal nees tuuti weeru ne teel mu ne waaw kay lee gën a rëy biddiw yi kon lii moo yàlla nees tuuti weeru dem jant bi dikk mun a xasa akbar lii moo gën a mag lii moom moo yàlla moom kii moom kenn doxul diggante mag yàlla ñu dem tuuti jant bi demaat mu taxaw daal di wax ak borom subhanahu wa taala na ko yàlla maa ngi ñaan gindi ma maa ngi gindi ma ma sa bopp ndax soo ko defee daal du ma jàll ndax ndekete xool ci luy am ak a ñàkk du mbir mi waaye xool ci kii amal ak a ñàkkal mooy mbir mi ba xoolee ñett yooyu la xam ne kon ñii kat du yàlla waaye kii amal lii di suuxal weer di nëbbu jant di indiwaat weer ak bidiw kooku mat a seet kon nit dafa war a def seet waxtu nekk euh, ki nga xam ne mooy amal mbir yi te bañ xool ci mbir yi mu ne bañ a geestu jëm ci benn cër bañ a dox jëm ci bijj euh, luy bijj àdduna bañ wut alal bañ wut askan bañ wu wut ku koy jox wala koy tagg yemale ñaar ñi képp ki koy ŋaañ ak koy tagg te yàlla rek tax yë gërëm loo tamit bu ko yàlla joxee ak bu ko xañee waaye tamit bu nee ci xat-xat ak bu nee ci euh, ak ak féex waaye tamit di suuxal boppam waxtu wu nekk donte le yëng nga ne sa bakkan bëgg loolu ngay dem fu ñu koy defee moo tax suñu tubaab na ci masalil ne nit ki bokk na ci tàggat tàggat bakkanam bu fekkee ne yëg na ne bëgg àdduna moo ko gaar nay dem fu ñu koy suuxalee foo xam ne boo ne kenn du yëg ne moom la kenn du ko jox wàccuwaay kenn du ko jox daraja loolu man euh, manhaj boobu la mag ñi sóoboon jànkati alquran yi fi nga juddoo màggee fi doon fi dara jàpp na yow dara nga fi ñu jox la fi ab bàttu wala pot nga def fi tànk neen rafle buntu kër buntu kër nga dugg fa xeebu ak torol foofu la mën a yem foofu moom ñi lay jox sarax ak ñi ngay dugg seen kër mënu leen woon benn daraja bañ gis ko moo tax alquran balay nekk ci doomu aadama faw da ngay am ak tarbiya ba noppi loolu ci mag ñi jublu woon leen la ca lenn la ca mu ne bokk na ca yooyee mu war a muñ muñ gu tar gu yàgg goo xam ne suñ Tuubaa wax na ko waaye taxoog di fuglu nag borom bi subhaanahu wa di xiif xiif bu digg doomu ndax jaamu yàlla munta ànd ak regg waxtu nekk ngay regg munta ànd ak jaamu yàlla di beru tamit nit ñi fexe bu sa bopp ay dog ndax nit ñi ku leen bàyyi sa bopp doo jaamu yàlla ku leen bàyyi sa bopp doo jaamu yàlla ndax boo dugg ci dara ñu dugal la ci waaye tamit fexe ba jëmmam ji mu jaamu yàlla mu sellal ko dem ko waxoon keroog ci waxtaan wi moo tax suñu Tuubaa waxoon ne arkaanu jamiil bayti xaw mi arbaatun bihaa yu assasu bunyaanun wilaayaati sumtun wa juu'un tawilun ba'duhu saharun wa oslatun an suyuuxum bi ishaaraat ñeenti ponk yooyu nit ki su bëggeek jaamu yàlla faw mboole ko ci ay laxasaayam ndax yoonu gudd ci la jëm euh, benn boroom xam-xam dafa doon jàngale lu mel nii ci bero mu di ko misaal ci ak fiir mu di ko fekk ko ci ak koñ na ko yow looy beru nii ci koñ bi sori nit ñi néewu seen biir nekkuñu fi yow mu ne waaw damaa bëgg mucc ci ayu nit ñi ñoom ñu mucc sama ay ba ma nii rek moo tax ku bëgg mucc faaw da nga wutal sa bopp ab ruq boo xam ne da ngaan mën a kan wala nga wut koo xam ne da koy may sa bopp loo def mu wax la na li nga def noo ko mane ak li nga wax démb lu ko ak nang mënoo ñoo ko mënoo ko ñàkk bañ a def waaye waxtu woo jàppee ne yow weesu nga nit ñi ba kenn du la wax dëgg kenn du la tax nga def lii ah su boobaa nag yaa ngi ànd ak seytaane ndax man takk takabbara fajara képp ku rëy rëylu rek naa naafeq ci la jëm sawara ci la jëm ndax iblis la ko yàlla xaar te loolu yoonu iblis la bokk na ci li gën a màgg ci yi nga xam ne nit ko war na ko gëm ci boppam rawatina kuy wut yàlla ak bëgg gu ma sëkk ndax dañ ne bëgg képp koo bëgg lu nekk da nga ci nekk moo tax sëriñ bi bi muy leeral sifaat sadiq murid te dañ ci agsi asidduqu fi mahabbati cheikh la njëkke woon bëgg sa sëriñ ak wommatu ci sa sëriñ ak sànni yetu gaaral ak jaxasoo ak yëngatu yu bari ak lu nekk nga yér ko na jamono bii ñu toll bari waa ne lu ñu dugg lab ca yërndu rek ak yoqamti ko moo ko waral a bi loolu ter na ko bokk na ci ay bindam boo ci nañu xalal xaaj bind na ko ci bu def lu tëgg nga wuy ci lu woote nga wuy ji lu xum nga dem déedéet ku xas jàpp loo xam ne leeral na aw yat la jëru ngay séntu ab gi tax ku jàpp gi tax moo yër aw yat waaye boo wut nag ba amu yat kon da ci jàpp rek te bàyyi yërndo bi ak yoqamte ko bi sëriñ bi tere ko lu bëree bëri euh, bu fekkee joxe sa bopp wammatu gi mooy liñ lay digal doon sa bakkan bañ na ko nanga ko ci gax ndax ab xaayit kii wammat ab silmaxa du ko ne nañ jaar fee du ko ne fii nga may jaarale fu nga ko jaarale jàpp na ne foofa la lu ko waral moo xam yoon wi moo koy won yoon wi moo koy moytuloo kàmb yi ak pakk yi moo tax sëriñ bi waxoon ca mbindam ne wa kun la daa cheikhika ka maytin wudia bayna yaday xaasilihi tantafia nekkal yow mi di taalibe bi ci sa kanam eh, ab sëriñ nit ki ku nekk ci ñaari loxoy woy sangam yu xale bu xay si sa da koy wulbite fu ko neex du ko ne bul xëpp ndox mi bu ko ne bul ma tourné fu ko fu mu ko tourné rek mu topp hu mu taayon fu mu ko mu topp loolu koo def da nga jëriñ bokk na ci xencu tamit mën naa yàq lu bare bare ndax képp ku bëgg a dabe ni ko sëriñ bi waxe woon faaw nga farlu faaw nga fexe ba xam ne am na loo raw ndax bëgg a dabe da ngay ne am na loo raw waaye saa soo yëgee ne dara raw la ni ko ñu bari di man gone la demaguma fenn amaguma bay ñàkk ba tey da ngay jàpp ne yow demu ko fenn waaye waxtu bu nekk ngay xënte woo ne yow mi kat rawle nga lu bare bare bare li nga am li ñuy bare bare mën naa ñett te man naa ñeent mën naa fukk loolu boo ko defee rek da nga dabal lu bare bare bokk na ci ay sartam saxoo wirde yi nga xam ne moom la sëriñ bi joxe dara jiitoo ci jàng alquranu karim dara jiitoo ci jàng alquranu karim alquranu karim nag jàng gi ni mu ko waxee lu yomb la te kenn ku nekk ci noonu amal nga sa bopp ay dog wala looy wut loo xamante ni ba nga koy wut demoo ci kenn mu yeela ca waaye lu mu jafe-jafe-jafe fexe nga ba am ko lu ko waral da jàpp ne bokk na lay yéwénal sa àdduna alquran jii nag day yéwénal àdduna day yéwénal àllaaxira te ñaari kër yooyu nag baax na lool waaye xëntu ëllëg nag moo gën ndax wala la axiratu xayrun laka min ula te yàlla xonte bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Tuubaa wax ne wa man yuridu rahmaani koo xam ne bëgg nga ngërëm borom bi subhanahu wa taala fal yusbitan alquran jooju mu la jàngaloo na nga setantal na nga koy setantal di diglu ci yàlla wax ne alquran daf lay dafa att li li weesu démb wax li ñëw tey wax tamit li ñu ëllëg indi ay att yoo xamante ni ñu ko di diglu te bañ a diglu suñu xel moo tax ku jaamu yàlla dañ koy jaamu yàlla ci alxuraan sunna te bi nga koy yàlla ni nga ko mane wala ni ko def ku jaamu yàlla it da ngay jaamu yàlla ndax innahu hayyun laa yamuut yàlla mu du fi jóge mukk mi ngi ni dem na waaye jaamu yàlla mi ngi fi kon buñ nekk di jaamu weer waaye nañ nekk di jaamu yàlla fu ñu mën di nekk kon danañ fexe ba xam ne jaamu yàlla moo ñu war mu wax feneen ne wa man yurid wa man yuridil xurba min mawlaahu ku bëgg a jege sa boroom te jege sa boroom dana waral ijaaba loo ko ñaan mu jox la ko loo ko laaj mu jox la ko loo mus lu la loo ñoddi mu ñëw nee na fal yàqara alquran la yenn saa na nga jàng alquran te bul ko fàtte kon daal nañ kóllërante ak alquran te alquran ak weeru koor ñu génn ñoom ñaar bu ëllëgee dañuy dikk ci ab jaam boo xam ne sawara yey na ko ñu ne yàlla tin ñu ci kii ndax moom day bawoon na ay nelawam daan ma jàng weeru koor ne moom bawoon na lekkam ak naanam daa ma woor yàlla daa koy jox dara yi ñu ne cas waajooyu donte sawara yeen na ko yóbbu ko aljana kon mën naa kóllëranteel de te ñun jullit ñi ku faatu ñu jàngale alquran waaye fekk na alquran jooju ne bi nga dund fekk na daa nga ko diglu di jëf lam la mi wax di bàyyi la mi tere waaye tamit daa nga ko jàng baa nga daan ko jàngul dana gën am solo su boobaa kon bokk na ci liy wéral dëggam tamit ni ko sëriñ waxee wa saxihan bi sidqi wal ixlaasi kilayhima sol bi ixtisaasi te nga wéral sa dëggu ci sellal loo man ñoom ñaan ñëpp nga boole ko boo ko defee day sëriñ bi nee na da tuufu ci ak jagle loo xam ne dana wóor na lii dëgg rek moo la ko may ak sellal ak topp sunna si yonent bi alayhi salaatu salaam mi ngi ko ñu tànn salaa wa salaamu alayhi al baari loolu kañaan ci jëmmam génn jëw ci boppam mbañeel noonoonte wanante ginnaaw wax lu dëgg rëy yéem sa bopp bu ko réew bañ a xool ngëneel ci kenn wolif moom bay werante bay xeebaate képp koo xam ne woote nga ne ab murit nga te yii nekk ci yow na la wóor ne la sëriñ bi waxoon di am njàngaleem mooy nga ko ndax daa waxoon ne sa bët bi bu xoolee ay bi jàmbur nee ko yow bët ni nga gisee ay bi jàmbur noonu la yeneen bët gisee sama ayib sa kàddu gi bu gisee bu tuddee bu bëggee tuddul ay bi jàmbur nee ko nit ñi am nañu làmmiñ kon li mu bëgg a wax mooy kenn ku ne sa jàngoro bopp na doy saafara walif keneen mu mel ni bokk ne ci ñu wax ne moo njëkk a war ci ab murit mooy mu ñoŋal ab yóbbalam ci tawxiit ndax yëpp bu fekkee ne nit ki tawxiitam mat na yëpp doo ko fekk loolu mu ne kañ la ko def njëkk muy soxlawoo ak beru ak wéet rawatina yi jamono indi léegi kenn ku ne beru di woote ne mën a te bu ngénnoon seen bi ci yow dara des ci yow euh, loolu tamit nga di ko def nag bi zikri ci tudd yàlla moom dong te farlu ci waaye noo koy defee nga sóobu ngirum ñooñ sunna te mooy ngirum sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ñi la jot te loolu kat boo ko defee mooy lay bi nga xam ne mooy pakk bi nga xam ne mooy dox sa digg ëllëg fitna loolu nag yii yëpp ak yi ma tuddagul boo delloo ci sëriñ mu Ka loolu mu wax ne imaam Sha'rani Kamal tiire mu bàmbale misaal giñ naa ne yaay abu rijaal amul mas xarnu bi wax na ci bare bare bare téere boobu kay fekkoon al murit wuute ak léegi niñ ko liñ jàpp ne noonu la murit di nga xam ne léegi boo siiwee ci ay caaxaan dib saadix soo mën a joxe alal laaj ñu foo ko jëlee donte xam nañ foo ko jëlee sax islaam defu ko métier di saadix ah ñooñu day démb ca démb waxuma la nekk ci ginnaaw waaye xalaatuñu woon jege sëriñ bi sax bay nekk ab saar tey ci ñoom kon du lu yomb lu ñu wax la waaye doon gi moom yombut ni ma ko waxoon léegi rek wax gi yomb na waaye jëf gi moo tax ko nekk loolu nag faw nga xam boo noppee nga xàmmee teg ci te diggante xam ak xàmmee nag sëriñ bi daa waxoon ne nañu wuti jumtukaay yu ñu ko may moo tax mu ne wa min makaidi la aynil mujrimi saddul muridina anit taallumi bokk na ci pexe yi nga xam ne moom la seytaane gàllankoore di mooy dëddloo gim leen dëddloo xam-xam ne ah xam-xam jëru ko sëriñ bi rek ah kay sëriñ bi lu mat a bind bind na ko lu mat a wax a wax na ko lu mat a jëf jëf na ko ñim jamono te ñu daan ko dégg ñun ñi mujj jamonoom ñu gis mbindam ñam jamono te ñu daan gis mu jëf kon xam-xam mënul ñàkk moo tax moo waxoon ne te na ngeen yeew na leen wér cee nga ne yaa ayyuha subbaanu yéen ndaw ñi yéen waxaa yéen waxambaane xaadakum ilal hudaal mannaanu fala ilmu wala fala ilmu wala amalu jawharaani li xayri daarin yi jubaane nee na xam-xam daal ak jëfe nee na mooy li nga xam ne ni mooy ñaari mooy bijj ñaari yiw yi àdduna ak alaaxira daal ne képp koo xam ne sàkk nga dara te ànduta xam nee na loolee mu sàkku dana mel ni pënd buur wuri rek du ci am dara li ma wax léegi nag ci ni ñu ko dëngale boppam dafa waxoon ne ponk yi nga xam ne mooy melokaani murid saadix ñeent la bëgg sa sëriñ bëgg dëgg lu nekk nga ne ca lu mu nekku nga génn ci ak boo noppee tamit nga jàpp ay ndigalam bàyyi ay teeram bañ a gaaral donte lim wax xamuloo ko waaye bañ a rek sëriñ bi nag ku boole yii nag te teqali ko ak moom neenakat yow yaay ki nga xam ne yaay murit yaay ki nga xam ne yaa dabu ak ndëgër waxoon na feneen ne koo xam ne yaa ngi jàpp ndigal yi jàpp bàyyi tere yi taqoo nga ak man saa soo nee ba gisatoo ma nag wala ba teqale ko man lala teqale ak man yaa ko def waaye du ci man te mooy waxtu bi nga xam ne rek bàyyi nga ndigal waaye jëfe tere ñoo ngi sant yàlla bu baax di jéglu yàlla bu baax di leen jéglu lu jub ci moom la lu ci dëng ci noonu la salaamaaleykum